الله أكبر الله الله أكبر الله الله Thank you.

واستعين إلا من تولى فيعذبه الله العذاب إن إلينا علينا حسابهم الله الله الله السلام عليكم السلام Yeah. nangu leen ñaan nangu leen ñaan amin nangu leen ñaan amin amin amin amin amin amin bàyyi leen yoon wi xajal kilifa yi parce que commune Mbacké di sant bu baax ànd ak mboolem njabootu Sëriñ Ibrahima Lo ak njabootu Sëriñ Mansour Lo di la sant di la yëbbante ak cant di la jëwriñ Sëriñ Cheikh Mbacké di la yëbbante ak cant di la Sëriñ Mokhtar Khalifa Daara Mouride ak Sëriñ Mountakha Mbacké Sëriñ daa wax na ni mi ngi sant mboolem njabootu Sëriñ Touba ñu ngi sant mboolem njabootu Seex Masamba ñu ngi sant mboolem njabootu Seex Ibrahima Lo ak njabootu Seex Abdou Lo nee na ñu ngi sant mbokk yi ngëyeen yi ñoom ñëpp di leen sant di sant mbokk taalibe yi di sant dëkkandoo yi di sant wëllëre yi di sant njabootu boppam di sant jaakati alxuraan yi ak yàlla sëriñ yi di sant si ñoom dañ daan bàyyi ñu kenn ma ne bu ngeen muy wut nag la demoon benn nañu la laaj naka ñu yore sécurité naka ñu yore sécurité

全然